suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen ñaanal jàmm di ko saxu ci yéen leen balo ak tey nag ni ngeen ko xamee rek Leewtoo ba tey si làmb 100 pour cent ñu seet si koo xam ne nii yaakaar naa ne su ngeen ko gisee du ngeen ko laajte parce que lu tax mooy digganteem ak ki mu yàndal ci làmb ñu xam leen muy Serigne Ndiaye ñu gën koo xam ci Serigne Ndiaye bu Modou Lo ñu koy nuyu di ko ziar ñëw fi inte di si mu dëkk dëkk ak Modou Lo ci benn kër presque mën nañ ne moom lañ seet si tey mais di nuyu doomu ndeyam bële toog wala di rakkam Fallou Petersen Serigne maa ngi lay nuyu di la ziar. sëñ Babacar ngi lay fay di la nuyu di la ziar. yaa ngi am jàmm. ñu ngi am jàmm alhamdulilah. naka dëkk bi ak taw bi. waaw dëkk bi mu ngi nii de ndox mi moom bëri na trop. mais dañu ñaan yàlla yàlla na nekk nawetu jàmm ak salaam. ñu ci baykat yëpp liñ ciy séentu yàlla na leen ko ci yàlla defal. Hmm. Serigne Ndiaye mais Serigne yow par rapport ak ni ma la gis ci lam da nga mel ni ku timide de ku xaw a am kersa nii ah. waaw ah, gi moom ci ñun ñëpp la mais làmb xam nga rek làmb moom boo ñëwee beneen nit ngay nekk. waaw ah, waaw mais bu ma la bu la Sénégalais yi bëggoon a xam kan mooy Serigne Ndiaye. waaw Serigne mu ngi nii de benn taalibe la rek ñàkk solo sax waaw. dëkk fan Bawol Bawol Njàmbur Njàmbur wala doomu Dakar wala. Ah, man moom Njàmbur Njàmbur laa. waaw. kon mën nañ sëriñ moom njàmbur njàmbur la. waaw waaw mën nañu wax loolu kay. mais foo juddoo précisément dakaar wala njàmbur wala. maa ngi juddoo fii Dakar. non non Grand Yoff. waaw. lu sama yaay moo fi nekkoon. waaw nekk ci bu ñëwee si diggante Serigne Ndiaye ak Modou Lo diggante bi fu mu jogee ak lu ko indi. diggante bi waaw loolu yàgg na diggante dafa yàgg. mu di liggéey suudar métallique la. def naa mu jóge ci soudeur dem nekk ci saret yi waaw boobu la woon. loolu fan la woon fii bii biir parcelle waa Grand Yoff. parcelle fii parcelle fii que parcelle bi ma fi ñëwee maa ngi fi bëgg a yàgg tuuti waaw. bi muy def menuisier métallique da ngeen bokkoon atelier wala loo di xamante bi. non bi muy def menuisier métallique fi mu doon liggéey ak suñu kër ñoo takkaloo. waaw kër doxul seen diggante. waaw. léegi bi nga ko xamee muy nekk menuisier boobu commencé na di bëri. waaw boobu mu ngi bëri ay mbapat waaw. bi mu daan bëri mbapat da nga ànd ak moom di dem wala. waaw dama doon dem doon dem bu baax sax. di ko jàppale si ban fan ci musique bi wala di ànd ak moom nii comme copain rek. non dama doon ànd moom boobu mbapat amul musique kenn xamul ci musique dañuy ànd ak moom des fois ñu toog benn samedi nii dem géej ñun ñëpp. ma ne kon def lañ am na teg nañ li mu nañ dem ma jël ko. buñ demee yàlla defal ko sutura. mu dem ay dem final final perte wala mu dem ñu génnee ko par tirage des mu gagné waaw. yan nga ci gën jàpp ci mbapat yi yoo xam ne dem nga ca tey nga xalaat ni muudu bi du fi def du yomb ci moom mu ñëw def fa dara ba jël fa dara yan nga ciy fàttaliku. mooy def leen bi ñu demoon stade Iba Mar def leen boobu boobu laa xamee ni champion lay nekk kenn mënu ko téye. boobu yan champion fa nekkoon ak lu mu fa def ba nga xalaat ne ëllëg dina doon champion frais. boobu boobu par tirage sax lañ ko génnee. mais séeréer si après ñoo mujjee réagir. Hmm? non dafa bëreek jama presque vingt minutes courant coupé. jama mooy Joseph Moundoor Seck bi nekku nekk di Ndakaaru. jama jama jamono jooju kenn mënu ko daan Sénégal ñu bëre vingt minutes courant yi coupé ñu ne dañuy tirage amateur ci kaw ne kenn du tirage dañuy toog xaaraat courant bi ñëw ñu toogaat lu mat ay une heure de ñëwaat ñu bëriwaat lu mat vingt minutes courant bi coupé mais bi mu coupé waatee bi mu ñëwaatee yàggul ñu waat ay sept minutes rek arbitre di tas ko rek dem yëkkati loxo jama hmm. keroog bu Modou réag bu Modou dalalul woon supporters yi kon làmb ji keroog du àgg. Hmm. Hmm. foofu daal ca nga ko xoolee xam ne kii moom ëllëg dina nekk quelqu'un ku ñu tudd si làmb. waaw waaw foofu moom xam naa ni foofu moom xam naa ni kii bu dëggalee boppam tuuti rek day nekk champion. ci biir parcelle mbapatam bi ñu fi gën a coow. dañ ciy ñëw muy digganteem ak Ama Baldé nañ fii la ko daanoon parcelle yow loolu seetaat fekke na fekke nga ko. loolu kon tey jii si man ajuma la woon di bisu ajuma comme bis bi nii tey comme nii ñu war a xëy dem bëre ji arène. waroon a bëreel arène jour boobu. Euh, mooy cinquième combat Xaadim Diallo. waaw. bis mu war a bëre arène ci la bëri mu ak Ama ajuma fii daan ko mbapat. je me rappelle bien. daa bëri ji ba ñëw door a bëre ak Ama wala moo dem. dafa bëre ak xëy dem bëre ji euh, arène. waaw keroog mook Ama parce que man ci lu ma nangu ci Ama nee na dafa mel ni koo xam ne daal euh, dañ ko dafa euh, maanaam kii daal maanaam dugal ko ci fiir maanaam fiir maanaam nax ko bàyyi ko fi ba yenn heure yi ñu dóor ko birool affaire yoo xam ne daal da ngeen a daw ci mayanam ba daan ko mais dug ma neel non non non non kenn dawul ci mayanam mbapat la xam nga mbapat da ngay ñëw ñu ne la 19 heures la mbëri di ñëw nga toog fa ba 22 heures doo ba bëre kenn mënu ci dara combat nommé la woon mbapat nommé mën nga ñëw mën nañ ne la 17 heures nga ñëw 17 heures bëre 21 heures wala 22 heures waaw. kon moom looloo ko fi yàggal waaye doon luñ ko ay nax wala yu mel noonu. non du ay nax loolu du ay nax mbapat yooyu xanaa xamoo sax bi ci CNG defee seen loxo lañ ko commencé organiser normalement mais mbër daan takk ngemb toog ba minuit une heure du matin doo ko bëre. waaw. mais combat boobu nee nga comme démb ci yow ñun ñaar nu ñu bëree ak nu ko Modou daane. non dañu arbitre dafa sifflé Ama dox Modou dox Modou def naa waaw Ama dox ci kawam Modou dox ci kawam Modou daw kor ko Ama kor ko Modou bënn ko bënn ko wër ko ndomba Ama teg boobu quatre appuis sax du sit bi mu tegee quatre appuis Modou jël ñaari tànk yi yéeg ci kawam jël ñaari tànk yi dugal ko ci ginnaaw tànk mi mu teg ci suuf jàpp ci ñaari loxo yi fu doog moom kon loolu moo waral boo gisee bi mu mel ni muudu mu ngi ci kaw ama ama jiitu ne ci biir daane te site koy daan bi ko pàmbay di wan boobu mu ngi équipe nationale présélection fekk ko fi sax kon daal kon loolu ak maneel la woon yàlla dangeen a jàppoon ne moo ko man daq koo bari non muudu sëñ Babacar muudu bu ñu waxee rek làmb don la don la bu ko yàlla may Modou li mu def mbapat defagu ko sax arène leer na Balla gay 2 Balla Gaye 2 dañ doon daje sax muy wax loolu kii dafa mun bëre kii champion la. mais ban parce que bokku ngeen sax catégorie wala doo leen ko xalaat. déedéet Balla bi ñuy bëree ak Modou mu mooy dégg maa ngi koy dégg mu mooy bu baax bi ñuy bi ñuy mbapat boobu li sax dafa ëpp waaw. loolu moo taxoon mënu ngeen woon bokk catégorie. waaw mënuñu woon bokk catégorie mbapat moo di bëre mbapat baal li mu ëppee moo dafa bëri. ok kon xanaa loolu moo continuer ba fi mu nekk nii seen carrière mu mën naa am ci moom pexe. non Modou mën naa am ci moom pexe. ci Balla mii. nga mën a am. seeni pexe fi mu nekk nii jëlu ngeen ko takk ko bàyyi ko noonu ngir Balla. pexe ban waay saa yi Balla suñu bëree ba bàyyi te daanuñu ko daf mel ni defuñu dara ci làmb. yaa wax li Serigne Ndiaye. kon yow bu man barab ñu yaakaaroon yéen seen xel nekkatul ci Balla parce que damay dégg ay nit ne mënu ngeen koo daan. non làmb la rek xam nga làmb des fois da ngay ñëw di uti lii fekk fa lële keroog moom Modou mu demee. bii passé nu mu demee lu ca xew ak parce que da mu demee nu mu demee. Ah, ni mu demee mooy làmb la rek. waaw nu mu demee làmb la rek Serigne boo ne làmb la rek day day simple quoi nu mu demee da koo ëpp doole da koo dàq bëree wala da koo ëppoon mystique bés boobu wala da koo gënoon pare. ëpp ko doole ëpp ko musique ëpp ko dara gënu ko pare. comme loolu di defet ba. defet bi erreur la parce que yaa ngi ci saaku yi bëri ngeen nga nekk ci kaw ci wetu saaku yi mais jàmbaar arrière dafa bokk ci jàmbaar waaw mais Modou buy bëri Balla du arrière chaque jour te Balla da ko xam. Balla da koy woo ci kaw mu dëggal boppam waaw mais bu doon arrière rek. kon beneen làmb la ñuy gis. maanaam su ma la déggee daal Balla day woo Modou ci li ko neex Modou wuyu si ko ci. waaw waaw xam nga moom boo nee ko dëggalal sa bopp pour moom àdduna bi bu ñu nee ko arrièreal bu arrière sax day day jàpp ni tapet la waaw mais làmb dafa laaj arrière. kon loolu yéen a ngi ciy liggéey ëllëg pour daan Balla. no mais man arrière Balla bu ñuy dajeeg moom dootuñu arrière dañuy avancer rek. yow nee nga bi jigu avant avancé bi jigu leen. waaw baa ñuy avancé rek xëy na dinañ mos a avancé am dara. ma dégg benn mbër bu mag Père Mbaye Gueye yàlla na fi yàgg te wér moog bépp doomu aadama mu fan yële paase Modou Lo mu ngi lijjanti nu muy def ba daan Balla gay numéro 2 te bis bu ko amee dina ko daan dégg ngeen wax jooju ak boo ko déggee loo ci wax yow. Père Mbaye Gueye waaw Père dem moom mag la moom xëy na li mu wax xëy na moo ci jiitu tamit mun na nekk de. waaw yéen a ngi ci lijjanti boobu. wax dëgg yàlla nekkaguñ ci wax dëgg yàlla waaw. mais dama la dégg sax nga ne su ngeen bëree ba bàyyi bëree te daanu ngeen bal day mel ni daan defu leen dara. waaw waaw day mel ni defuñu dara kay waaw. mais seen digganteeg moom coow li bëri na ci de. Ama Balde Ama tax seen diggante bëri coow. bëgg a bëri ak nag waaw bëgg na bëgg na bëri ak Ama. bay ba bañ a bëgg. Hmm. kan mooy mbër doo bañ a doo bëri ak sa morom pour am xaalis. actuellement bëgg ngeen ko nii jamono ji ñu toll nii ngeen nekk roi des arènes. actuellement nii xam nga làmb sax dañuy noppalu saa dañu bëri benn dañu bëri ñaari combat ci benn saison dafa metti xam nga au passage sax di nuyuwaale suma soxna xam nga benn ñaari combat ci benn saison di nuyuwaale suma famille di leen baalu àq bu baax ak suma soxna di ko baalu àq parce que dafa metti doo am vie de famille doo am dara làmb waaye. mais di mais mais dinaa ñëw fenn ci foofu bu ko defee ñu continuer ci ball Gaye dama ciy revenir ah, parce que bi ngeen bëree ba pare nit ñi dañ ne ah, Modou staff bi mu yor dafa xaleel en même temps ñoo xam ne la sax maanaam daluñu seen kii daal loolu bu ngeen ko déggee yéen loolu nu mu leen def. Ah, loolu bu ma ko déggee métti na ma torop torop torop torop sax. lu tax mu métti la. parce que too ànd ak nit ki presque ay vingt et quelques combats. ay vingt quelques combats yàlla di ko suturaal di ko suturaal ñu dem ak Balla ñàq rek Sénégal gi yëpp ñànki ku nekk yor sa làmmiñ di wax lu la neex naan ay xale lay àndal ay mag lay àndal dafa war a uti ay mag dafa war a def mais ñun ay xale yoo xam ne ay responsabilité lañ dañ yor suñuy jabar yor suñuy toom di leen dundal yor suñu famille di leen dundal kon tey jii buñ nee ay xale lay àndal wax ji dina ma metti parce que bi muy daan musoo taxaw dégg ku ne ay xale lay àndal mu daanu ñu ne ay xale lay àndal da leen war a raxas mais nag gàcce ngaalaama macha allah ndax ak muudu bi mu déggee loolu ci lañ gën a jàpp waaw ci lañ gën a woowaat tafaat ñu ci dënnam bu defoon rek leneen rek après dinañu metti trop mais moom ci lañ gën a woo gën a dalal suñu xel gën ñu taf ci dënnam bu mel ni suñu seetlu sax dafa mel ni combat boobu bi loolu amee ba nit ñi wax lool bi mu jëlaatee Eumeu Sène dafa a da ngeen a gën a actif ci li ngeen doon liggéey kon moom bi mu déggee loolu a gën a joxaat daf ñoo gën a joxaat confiance confiance boobu mu joxaat moo waral ñu ñu gën a taxawaat ci ay affaire am parce que tey jii doo ànd ak nit ba dara dul dara muy mbapat muy def lépp muy ba dugg arène dem ñu daan ko buñ ko mënee woo buñ mënee woo. ñu waxtaan ak moom ñu woo ko waxtaan ak moom mais publiquement ñun dañu am ay famille dañu am ay soppe nit ñi dañuy déglu fu nekk mais tey ji bu defee loolu nit ñi ñu xam sax lu xew ku nekk sa fami dina la woo lu xew naka la lan la lan mooy problème bi te wax yooyu ñi koy wax tamit dañu am ay njaboot nañ sóoraale ñooñu noonu ñu ñuy wax lii dañu am ay waajur yoo xam ne dañuy dañuy sonn ndax muudu dañuy sonn bu léegi bu ñu waxee leneen loo xam ne dafa négatif rek après suñu waajur yi nan lañ koy dundee day metti day metti waaw waaw sport a demee noonu sa sport moom yaakaar naa défaite ak victoire match nii la lépp mën a am léegi nag dañuy ñëw ci combat bi mujj roi des arènes bi moo Modou jóge ci bàll gay làmb ja seddagul ñu ne Modou jël na Eumeu Sène nit ñu ne Modou day xaru yéen yéen a toog ak moom ne ko jëlal Eumeu Sène wala Modou moom moo taxaw ne day jël Eumeu Sène ci même saison bi non loolu ci ko jëlee ci saison bi management bu baax la moo waral mu bëreeg Eumeu Sène ci saison bi waaw foofu moom dañ ci nuy au passage per Birame ñi nga di ko nuyu parce que def naa ni tey jii bu ñu bëreeg Eumeu Sène ci même saison Père Birame joué na ci role bu ngandee ngandee ngandee waaw waaw. parce que moom Père Birame moom mu dégg nañ ko sax mu ne moom combat bii la jëlal boppam moom Eumeu Sène bii moom moo ko jëlal bopp moo ko jëlaloon boppam. waaw Eumeu Sène moom moo ko jëlaloon boppam te it wane na ko. waaw léegi ngeen jël Eumeu seen nit ñi ci liñ doon gis du liggéeyu entraîné wul nekkul ci combat bi wax yow yaa ngi ko doon dégg. waaw ñu ngi ko doon dégg bu baax moo Modou Modou du doom combat te du liggéey waaw Modou bu amee combat liggéey bi la gën a fartaal lépp lépp sax ñaan yëg yëpp liggéey bi la gën a fartaal entraînement bi. parce que tamit nit ñi tax ñu doon wax ñu ko doon gis ni mu ñëw ci signature contrat yi en même mu takk fi ñaareel ci diggante beeg yooyu ñaareel beeg yooyu yëpp xam nga nit ñi ne est-ce que Modou mii nekkul ci ñaareel bi di noos wala yu mel noonu. non non non non xam nga nit ki moom vie privée am doo ci sori li mu sentir ba dem takk soxnaam moom moo ko xam vie privée am la quoi di ko nuyu au ak ñaari soxnaam yi leen wax ni yàlla na seen ginnaaw sedd guy waaw. ana ñaareel. Ah, ñu ngi fi. ñu ngi fii de. ñu ngi fii ci dëkk bi nii. ñu ngi ndagaaru nii. ñu ngi ci ndagaaru kay. kon de Modou temps yi mu ngi ci bala xal ma daam la xaw ma. non Modou bi mu entrain bi mu bëree ba ci lënd bi dafa dem entraînement. non mën naa entraîné ji mais nag comme temps yi que dégg nañ fi fan yii ñu mu ngi ci quartier bu Zik Dakar di kii di dafa di noos daal. waa mais dafa war a noppalu. dafa war a noppalu. saa dafa jël combat ak Balla Gaye presque neuf mois. di ko entraîné pare nga bëre le treize janvier daanu ci guddi gi ñu annoncé sa komba ak Eumeu Sène lan moo la war jugaat teguwaat ci entraînement yi liggéey boobu bi mu paree dafa demaat liggéey liggéey entraîné waaw. seen diggante ak Eumeu seen boobu dañ ciy ñëw préparation combat bi su bi mu jege ñëw coow yi bëri na ci biñ ci gën a ràññee nag muy diggante Serigne Ndiaye ak Pape Sarr loolu sa diggante ak Pape Sarr wala sax waa Pikine. non waa Pikine aw ak ñoom benn problème. Pape Pape Sarr euh, maa ngi koy nuyu au passage moom tamit euh, nit ku baax la déggante nañ téléphone nit ku baax la mais xam nga làmb noo mën a def rek pour déstabiliser sa adversaire ak côtéem da nga koy def mais li mu doon def yooyu yëpp pour jéem a déstabiliser loolu ñu la wala jéem ñu perturber mais champion la nag de Pape Sarr. na ko waa Pikine jàpp bu baax. lu tax nga ne champion la. ku mun li muy def la. moom Pape Sarr. am na nu mu doon defee. li mu doon def bu doon ñun dañoo nekk ay gan ci làmb rek mun nañ perturbé wu. ak yu wax yeeg am na wax yoo xam ne sax jot na ko wax xam nga ba suñu famille suñu soppe yi dañu woo fu nekk dañu wax xam nga mais yu mu doon def yooyu yëpp mais xoolal suma ci perturbé wu. gars yi loolu lañ ma woo nan ma Pape Sarr tontu ko mais boobu bu ko tontu woon la ci laay perturbé wu quoi mais mosuma ko bëgg a tontu. dama ko bëggoon bàyyi mu wax lam bataille psychologie bu garaaw la doon def. non moom ku mën la muy def la naka waa Pikine fonk bu baax. waaw yéen ñaar da ngeen xamante lu dul làmb wala. non làmb lañ mos sax xamante. làmb à part boobu dama daan gis ay vidéo ci ni muy défendre Pikine ci ni muy sonnee Pikine mais ku sonn ci waa Pikine la nag billaahi ku sonn ci waa Pikine la waa Pikine nañ ko rendre hommage de waaw dañ ko war a rendre hommage bu ngande waaw waaw léegi suma boo xoolee bu Ama di bëre day mobilise Eumeu Sène day mobiliser boo Niang day mobiliser mbër yu ndaw yi da leen di jàppale loolu loolu amatul fii de yombatul de boo xoolee xoolal supporteru Modou yi sa kii génération xarañ tey jii na beneen mbër génnoon parcelle di bëre ji ah, doo doo leen ci gis à cent pour cent mais bu Modou génnee di nga leen gis à cent pour cent waaw mais parcelle Pikine yépp lay génnal génnalul benn mbër rek waaw waaw waaw waaw léegi ngeen ñëw stade Léopold Senghor ak Eumeu Sène ah, man li ngeen indi kere ci Arsenal mystique moo jaaxal nit ñi Serigne Ndiaye non indiwuñ dara nag déet man kay gis naa ay oto ay pick-up lu ne saaku yeeg yu kenn xamul. waaw pick-up bi moo doo ci duggoon beneen oto bi moo defoon bagage am yi. Hmm. waaw. ak yoo xam ne sax man dégg naa mosu ñëw Dakar kër lañ fii doog a ñëw. dañuy wax rek paa ngi fii Dakar fii boo génnee fii ñu ngi fii. <laughs> mais biir ko ci biir combat bi li Modou Lo yéen xalaatoon ngeen ñi doon ànd ak moom ne bés bii tey day dóor Eumeu Sène mu daan wala. non ñun moom liñ ko waxoon lépp lépp teeyal teeyal teeyal lépp respecté na ko du début à la fin parce que bi ñuy dem dañ ko doon wax teeyal du làmb ju ndaw ak fi nga jóge teeyal pourtant jour combat bi ci suuf gi fii lañ nekk di kaf di ree moom mais bi ñu demee ba dugg ci oto bi non beneen concentration beneen mootu lañ gis waaw moom la yóbbu stade moom ma xam ne nag kii tey des dana quoi. xëccoo bi woon ci biir stade bi yéen waa kër machine gis nañ papi songoog ñoom pap ngoom fii tóorante bi police yi àtte mu mel ni tamit pression bi taroon trop keroog de. non pression tarul pression bi tarul woon papis day xale dafa yor deretu deretu xale la yor deretu ndaw xëy na bu jegee muudu boo defee yenn yi day bëgg a wane boppam ba ëpp. wala mu nga def ko yenn yi day bëgg a fayu coûte que coûte mais xëy na après li ñuy rectifier lay nekk ci moom rek des fois mën nga ñëw pour ñu jéem la déstabiliser wala def la dara mais day xale rek waa te xam naa dafa bëgg dafa xër dafa xër dafa xër ci Modou billaahi wallaahi Papis Papis ni mel ci Modou non non beneen yéeme na torop torop daal torop léegi su may wax gii mu jege Modou yëpp muy yow ak papis bu laay Laye ak ñoom baaba ak ñi ma mënta lim sax ñoom euh, Demba Moodu mu ngi leen ji ba tax bu Moodu nekkee ci bis ngeen mel ni ñoo xam ne daal digg da di gumba tëxlu du ngeen xàmme jànjag joor lu leen Moodu ji. ñoo dafa gore rek moom dafa gore moom dafa gore moom dafa baax billaahi Moodu bu nekk bu woon làmb sax day siiw ci leneen bu defoon leneen bu làmb dina ci siiw. parce que. mu du du bàyyi nit du xuloog nit boo nekkoon tey jii moytul sëñ Babacar si bi sëñ Babacar mi ci sa combat bi moo lay jëli taf la ci wetam ba nit ñëpp yow mi ko doon wax loolu yow finalement dangay ngay mujjee jaaxle waaw kon moom du daw nit daal su ma la déggee billaahi du daw nit bu doon daw nit nekk bu yàgg la ñuy nekk roi des arènes. Modou bi mu doon seen mu daanu yow loo njëkk a wax lan moo nekk sa première réaction. sant yàlla bu baax dama santaat yàlla bu baax ci stade bi waaw balaa may génn stade dama sant yàlla bu baax comme li nga wax noonu rek xalaataat bi ni Balla Gaye daanee wax yi ñu doon wax ay xale lay àndal keroog ay xa waaw ci même stade ci fi ñu toogoon fa lañ toogaat moo tax ma sant yàlla delluwaat sama xel xalaat ni paa doon wax ancien gulaar yeeg ñeneen ñeeg ñëpp Modou ay xale lay àndal moo tax keroog yàlla ñëw mayaat xale yi ndam ne leen ay xale la àndalaat tey may naa ko. léegi daan ngeen amal seen coow li commencé ci roi des arènes ak nii naa euh, Bombardier sax dégg naa ko mu ne moom du ngeen roi des arènes am. ah bu ko neexee wax ko. est-ce ni mu leen daana tax mu wax ko. waaw ah, bu ko neexee wax ko. yow loo wax yow ci loolu mu wax. ah Bombardier ñaata yoon la ko yëg ni daan. laaj naa la ko. bu neexee Yékini Yékini taxaw ne du sama roi des rek te nekk ko fi yor ko fi deux ans titre bi. jëloon na ko perte ko ñëwaat yoraat ko fi deux ans. Mm-hmm. daan fi Balla Gaye daan fi Modou ñaar ñi gën a të ci làmb nga daan leen. Mm-hmm. ñëw Eumeu seen daan la. ah day na bàyyi loolu tamit. waaw mm-hmm. ah, na bàyyi loolu mag la waay. Mm. Lac de Guiers moom nangul na leen ko waaye moom mu ngi leen di xaar ci àngal parce que jàpp na ne li mën ci yéen dara moom ci moom la ne actuellement. la guerre 2 moom bëre moom yàq carrière la de. lu tax nga ne yàq carrière Serigne Ndiaye Lac de Guiers 2 di mbër. Lac mbër. Lac est-ce que mbër la. ah yow yow mi bëre moom ñaari yoon te mënu ko te est-ce que daan nga ko. ñaari yoon yoo xam ne amul benn yoon bu mu taxaw Lac de li ko Modou may ci làmb bu ko mayoon beneen mbër kon instant yi ñu ngi lëng Modou di jooy. Hmm. waay yow. yow da ngaa jàpp ne du mbër. ah Lac de Guiers Lac de Guiers rek firnde na ko. Hmm. waaw kay. lu mu fa wane ah, moo daan lañ seen CNG wax de. Ah, moo daan avec nan. yow ah gisoo na mu daane. ah mënoon na ko daan avec la manière ñëpp jug ñibbi la de guerre bu arbitre bu la neexee utal barada kaas teg di nga war nga lëwal deuxième troisième. <laughs> kon da naa daan Talla moom bu keroogee moom xam ne attaay rek lay dund dina mën a jegeñ. bu ñëwee ma xeelal ko kaas bu Lac de Guiers amatee combat damay yóbbaale matériel yi esat ne ko kaay ma xeelal la. Ah. kon fi mu ko leen ko jox du ngeen ko jël. bañ jël muy waaye ñun xaalis rek la ñuy Modou xaalis lay liggéey de day liggéey xaalis dem léegi làmb ji saay yi mënoo fi nekk di bañ ñëpp làmb ji kenn mënul bañ kenn la dëgër moom moo dégale da koy bàyyi ne waaw. tafaatin takk nag dégg naa ngeen ci mbojam nag. waaye tafaatin tamit daa bëgg a bëre Modou rek saa yi fii ku yor ku yor couronne bi ñëpp bëgg a bëre yow. yéen bëgg ngeen a moom. déggoo li ma la wax am kuy takk ngemb ci Sénégal Modou ne ñu acca ñu dem. yow fi mu ne actuellement kan la Modou war a bëreel Serigne Ndiaye. te dañoo toogagul waxtaan nag bi làmb jeexee ba léegi. wax koo xalaat yow. waxtaanaguñ sëñ Babacar yaaw jaal sax bu ñëwoon suba suba moo dinañu acca ñu dem. du seen adversaire say adversaire tafaatin la ñu wax ama. Giribo Giribodo moom du ngeen def label. ñëpp ñoom ñëpp ku ci Modou nañu kii laa jël rek ñu ànd ceeg moom. Hmm. waaw. Ama de moom nit ñi insisté nañ ci moom. waaw Ama ak Modou combat bu neex la. waaw làmb dégg naa ne mooy dekkalaat làmb de. Euh, non non. làmb Balla Gaye Modou Lo dootul dootul mel ni Ama Baldé Modou Lo. maanaam làmb Balla ak Modou benn combat mënu nee mel su ma la dégg. non non non non non non non amul coow lu waxuma la dara c'est ancien gulaar yi ba fi ñu toll nii Balla ak Modou coow làmb loolu dootul amati Sénégal waaw. mais kon daal xalaat naa yéen ñii su ma leen déggee est-ce que du Balla mii da ngeen a bëgg a fayeeku ji ci moom. déedéet déedéet. pas fayeeku sax mais damay wax dëgg rek da ngay wax dëgg quoi gis nga Balla ak Modou tey jii bëri na seen moroom yoo xam ne ñu ngi si ginnaaw bu ñu lekkee yenn kase yi nañ ko sante Balla ak Modou lu tax parce que ñoom ñoo njëkk a ñëw dugg ci cercle VIP fayeeku yenn xaalis yi boobu mbëriñ ci suuf ñu ngi leen xaw a rey waa parce que dégg naa ñu ne ñooy ñaari mbër yi gën a populaire ci làmb ji de. non ñoom ñaar déggoo li ma la bu tey ji mbër mu nekk ci ginnaaw ñoom ñëpp de A Z ku ci fayeeku yenn xaalis yi sante ko Balla ak Moodu waaw ku ci bëreeg Moodu am xaalis am xaalis. bëreeg Moodu de fi mu ne li ñu wax mooy Ama Tafatine waaw wax ma. ñaari kaseem yu gën a rëy ci làmb hmm. Modou loolu ko bëreel waaw ah, Eumeu ñaari kaseem yu gën a rëy ci làmb hmm. Modou Lo ko bëreel Gris Bordeaux bu la neexee nga laaj ku la neex ñaari kaseem yu gën a rëy ci làmb mut loolu ko bëreel kon daal looloo lay wan ne ñoom ku bëri ñu Balla ak Modou ku bëri ñu am xaalis nga bëgg a wax waaw ku bëri ñoom am xaalis hmm. yàlla moo def loolu yàlla moo leen moo moo leen jagleel loolu Balla koo koy jox Balla nii nii nii nii nii bu doon bëriwaat. Balla war na mën a bëriwaat ak ay bombardier war na jëli revanche am ñun ñi tam war nañ jëli suñu revanche tamit. ci bombardier da xool lamb lamb rek. mais war nañ mën a tamit may xale yi chance ñu yéeg. Mhm. bala war na mën a may Boy Niang chance Modou war na mën a may Ama chance ñu yéeg Modou sax ak ay Ama ay morom lañ. Mhm. war na mun a bëreeg ay ay moromam fi mu toll nii parce que bëri naag Modou bëri naag ay magam bëri naag ay nijaayam. waaw war na mën a bëre ak ay moromam fi mu toll nii a ah, bëre na ak Kayre Kayre jën Kayre ak Moodu ay morom lañ. waaw ah. ah, ay jeunes lañ tamit ay morom lañ. ay jeunes lañ ba du leen fi fekk jën mu ngi ñëw de. ah jën jën na bàyyi tànn moom tamit. tànn. jën lu nooy rek la bëgg. mu bëre Quench bu yàggul nga ne day tànn. nag jël ci adversaire yi bëree. koo koy jox. ah jën nii nii nii nii su doon moom. na jël ci booy yi ah sa lamb ji boo bëggee dem da ñam ci booy de. dangay daan say morom ba mu jeex nga doog yéeg say mag waaw nga jël ci seen morom waaw. dañ leen di féliciter tamit en tant que roi des arènes. waaw ñu ngi delloo féliciter di sant ñëpp képp ku ci jàpp. parce que lam metti na nga bëre benn at ñaari combat ñëpp di ci jàpp ñii di yëkkati seen alal di ci def ku ci mel ni sëñ Habib Dem kooku suma xarit la suma sëriñ la suma xarit la Habibu Dem kooku mention spéciale ci moom dafa xeeb sax xalimaam ba day dem jug ti uti waaw kooku moom mënuma toog wax ba mu jeex te santumu ko gërëm mu sax da ngeen di dégg moo di moom daal dañ koy bàyyi yàlla rek sëñ Habib dem waaw ku am yitte day taal otoom tëj këram te pourtant li sëriñ si mun mun na ko mais xam nga bëgg-bëggam yëkkati alalam dooleem lépp billaahi wallaahi di ci def kooku moom dañ koy bàyyi yàlla rek yàlla na ko yàlla fay mooy di waaw di jaale waale alpha moom yàggul dara waaw di ko ñaan yàlla na yàlla xaare àjjana te oyofal suuf ci kawam waaw waaw tamit di la ñaanalaat jàmm rek comme ni ñu ko waxee taala Serigne Ndiaye a ngi noonu làmb la la waa ànd nag moom li koy dëgëral rek ku ne xam na ko taala mooy ànd te yàlla tax te defe naa loolu la wax seen digganteeg Modou Lo Ndeye Coumba Fall di nuyu ñëpp ñu ñu suivre ci Leewtoo TV di nuyu Ndeye Coumba Fall taal Ndiaye ak Père Alsane mi ñu àndal di bégg si ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm daal.